évidence seeni kaay nee na ña xam ne ñoo fay liggéey di personnel ba day jaajëfal nañ bu baax a baax seen directeur ba fa nekkoon di Ibrahima Sall kon doon jox leen ngay di Mamadou a baax seen directeur ba fa nekkoon di Ibrahima Sall xamal nañ ko Sall yow sa juróom-ñaari at yi mu def yëpp jàmm laa pee rek lañ dégg fii ci Sicap démb nag la Ibrahima Sall kon doon jox leen ngay kii di Mamadou Kassé l'observateur de